dañuy wax ne jullit la taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim la taalibe Tijaan la muy Cheikh Ahmed Tijaani mi nga xam ne tey mooy trondoom yàlla moo ñu may ki nga xam ne may nañu ko kooku di kan muy Cheikh Tijaani bam ñu koy may mu ñu ko mayee ci bànneex ñu kontaanoon lool na alhamdulillah su ko jëlaatee tamit yóbbu ko dañuy wax alhamdulillah ndax keroog bañ ma koy tàggee ci dimanche mu ngi ma fekk ci place boo xam ne maa ngi reer te yaakaar naa ne kilifa gu em nii suñ la waxee ne la génn na àdduna wala làqu na di nga tiit wala dinga nga caalit waaye dañ ma ko wax ma continuer di lekk di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax lu waral loolu dama xam ne kiñ ma tàggee jullit xaqal na boo xam ni awma lu ma tiit ci moom parce que xam naa ne ci àjjana la nekkoon te ci àjjana lay delloo ndax nit kuy def lu baax ki nga xam ni tey ba mu juddoo ci baayam baayam moo ko dugal ci daara mu jàng mu juddoo fii ci Kossy fi nga xam ni foofu la baayam taale faydu ba mu juddoo foofu mu jël ko jàngal ko Alxuraan jox ko ki nga xam ni kenn la woon ci muqaddama yi mu jàngal ko Alxuraan mu jëleewaat ko foofu yóbbu ko ci Mauritanie mu jàngi mu génnewaat ko kon bàyyi nam doon defee doomam yi nga xam ne daf leen doon jël ñoom ñépp génne leen ci biti parce que daf na leen li ngeen di ut ci xam-xam mu ngi ci man dinaa leen ko xamal waaye damay bëgg ci kaw àddina li nga xam ne dana méngook àddina pour ngeen dem defi ko mooy diplôme yi nga xam ne moom la ñuy dem uti mu dem jàngi ñëw waaye nit koo xam ne la woon ci wetam ak baayam kenn mënu koo ràññee ci ma dafa ma baayam ba baayam gërëm ko te nit ñi nee nañ waajur jullit su dee daal suñ ne jullit la ay waajuram gërëm nañ doy na sekk ci seede waaye ki nga xam ne moom ba kay baayam di seedeel ne kii sama doom la ne kii sama taalibe la ne doom ju ma gën a fonk ci doom yi la boobu mu ngi nekk ci zahir ndaw la kooku nag tey ba muy jëndal baayam oto boobu mu ngi nekk di jàng ca daara di bay lam xamoon di ko bay di ko jël di ko denc lam amoon ci bursam di ko denc lam doon faraatu di ko denc keroog ba mu jëndalee baayam baayam dafa toog seedeel ko ne ko dëgg dëgg sama taalibe nga waxu ko ne ko sama doom waaye daf na ko dëgg dëgg sama taalibe nga te taalibe mooy li nga xam ne nit moo koy jëriñu Cheikh Tidiane man mii di wax ak yow man maay seen caat maay seen rek waaye mun naa laa wax ne la sama baay la ndax man maa ngi juddoo Cees foofu laa juddoo juddoo ci kër goo xam ni kër gu ñëpp xam muy kër Lat Joor Ngoone Laati Jóob nga xam ne ma sekk moo jur Faa Jóob jur sama yaay caatu Lat Joor moo ma jur tey Cheikh Ahmed Tijaani mii bokk na ci xaaj Abdoulaye ba mu ñu jëlsee à quatre-vingt indi ma ma fii ci Kaolack boobu maa ngi nekk xale keroog guddi gu ma ñëwee ci weeru koor la maa ngi jàkkaarloog jumaa ji boobu jumaa ji melul nii lii ci kanamu jumaa ji benn tableau la woon bu mel na ngamb keroog lañ ma jël indi ma ci Cheikh Ahmed keroog boobu ba may nekk xale ba nu ma koy xamee ni moo nekk sama baay mu jël ma yóbbu ma ci Seydi Aline Cissé mi nga xam ni mooy suñu sëriñ gannaaw Cheikh Ibrahima ñas moom lañ yaakaar gannaaw Cheikh Ibrahima ñas ñun ñii di ay doomam féete ci ndaw lépp lu ñu am ci baay ñu ko amee ci ngiru li nga xam ni mooy Seydi Alioune Cissé moom nga xam ni baay moo wax ne mooy seen sëriñ te moom mooy seen lépp mooy suñu baay mooy ci nangam mu yóbbu ma mu dalal ma. Cheikh Ahmed Tijani ma nekk ak moom ci ay atam ci la ma fale ma nekk coordonnateur mbooleem taalibe Cheikh Ibrahima Niassi ci la ma fale tamit ci nguuram ci la ma fale. ma nekk li nga xam ne tamit maa jiite mboolem jeunesse ci àddina bi nga xam ne jeunesse shababul fayda la képp ku bokk ci Cheikh Ibrahim keroog ba may mujjeeg moom mu ngi nekk ci julli gi ma ñëw fekk ko ci biir néegam mu ngi toog soxnaam su tudd Fatumatu nga xam ni yàlla nañu ko yàlla fayal moom ci boppam ci jàmbaaram ci ànd ak moom waaye fekk naa fa doomam boo xam ne yaayam shérif la mu tuddee ko Cheikha Mariam mi nga xam ni moo nekk ca dakaar di doomu Cheikh Ibrahim Niass boobu dama ñëw fekk ko nuyu ko ne ko sëñ bi de tabaski bu nekk dañuy fotowu waaye tey de ñëw naa waaye tey fotowuñ mu yëkkati res jox ma ma lekk ba ma lekkee ba pare ma ne ko damay dellu dakaar nii mun na ma léegi nii mu ne ko waaw mu ne ma macha allah waaye am na nu mu defee daal yëkkati naa sama àddiyee jox ko waaye xam naa tàggutoo naa ak man te loolu dama koy sante yàlla tey fii nga gis tey ci Medina Baye gii lii ngay gis nii fii sama kër gi gis nga maktab bii fii yëpp gis nga toj-toj yi yëpp mooy li joxe nii pour ñu liggéey ko ci maktabu Cheikh Ibrahim ñas bi kenn defu ko ku dul moom moo ko def ndax fii mooy bibliothèque gu Cheikh Ibrahima Niass jumaa ji ngay gis nii imaam Hassan Cissé def na ci doole imaam Cheikh Tidiane Alioune Cissé def na ci doole ba mu yegg si fii waaye Cheikh Ahmed Tijani bokk na ci mbébétam lu doon def mooy jéema a daane jumaa ji nga xam ni su ko daanee pour jël ko defaraat ko mu méngoog jamono ji kon lu ma lay wax nela ci mbooloo lu nekk fii tey ci senegal gi ci biir Medina baay gi ëpp na trois cent personnes yoo xam ni moo yore seen dépense guddi ak bëccëg mooy dimbale nit ñi dama lay wax nela la nitu yërmande nitu lislaam nit ki meloon ni baayam dem na tey ndax baayam Cheikh Ibrahima Niass nit mus naa ñëw na ko man de baay damay ut si li nga xam ne mooy dépasse baay demoon na ba nga xam ne moom ci boppam njabootam gi fii ci biir kër gi da doon yóbbu ci jaamu yàlla yi di leen séddale di leen jox ba ay njabootam sax dadoo la du leen tal ndax mbaax ak bëgg doomu aadama yi baay moomu nag mus naa toog kooku ñaan ko dépasse bàyyi na ko toogal léegi yàlla ñëw ci li ñu nettali am na naar bu ñëwoon bu tuddoon xaaba yëkkati enveloppe boo xam ne ci jamono jooju jox ko Cheikh Ibrahim bàyyi di yëkkati di joxe bàyyi di yëkkati di joxe bàyyi di yëkkati di joxe ba waa ji téye loxoom na ko Cheikh Ibrahim mu ne ko ah ne ko xam nga enveloppe bi ñaata laa ci indi mu ne ko soxlawuma koo xam waaye yàllaa ko ëpp kon Cheikh Ahmed Tijani gis naa melo boo xam ne def na ko ndax gis naa nit ku ñëw. di jooytu liaas buñ ko génne bañ koy jooytoog yooyu ñëpp a ngi toog ci saal bi mu mel ni ku ko déggut wala ku ko tànqamlu waaye ba mu paree dafa tourné na dem leen jox ko kër gële ma may ko ko te kër googu ay millions la waaye yëgalu ko boppam kon kooku tey suñ demee ba nga xam ni tey jóge na fii ci àddina bi danañu am lu ñu métti lool ci ndimbal waaye dana am lu ñu métti lool ci jaamu yàlla parce que àddina njëriñ rek lañ koy soxla dafa amoon soxna baay boo xam ni mooy maamu xalil baay bi ngay dégg xalil ñas kooku ba baay génnee àddina ñëpp di jooy naan Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass génn na àddina génn na àddina moom boolewu ci wax dafa waaxu dem ba ci imaam Hassan Cissé ba mu ñëwee ci imaam Hassan Cissé na ko man dama lay laaj moom naar la woon ñu koy wax may a bàyyi way na ko ci ay wayam yu bëri tagg ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bàyyi doomam yeeg jabaram yéeg ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la leen xoolee ba mu ñëwee ci imam lam ko wax daf na ko waaw sama doom bile mu ne ko ah mu ne ko lenn rek laa lay laaj sa maam bi ba muy dee lan la wax ci dépasse bi ndax bàyyee nañu dépasse moom xalaatul bàyyi lim jooy waaye dépasse bi lay xalaat kon njëriñ ci àddina mooy njëriñu njël te wax dëgg yàlla yore woon na njëlu jàmbur yi fii kon nag ci yàlla nag mënuma la ko wax ndax tey lii may ko xilaafam liggéeyal Baay Ñas la de waaye góor góorgóorloom mu la moom parce que Nigéria moom dafa toj moom Cheikh Tijani àddina bi Soudan dafa toj Afrique gi fu nekk dafa dem fu baayam dem ñi nga xam ni mooy kër diina yépp ku ci nekk rek dafa mel ni yaak moom yéen a bokk ndey ak baay laata muy toog nag ci xilaafa parce que ku ci nekk rek am na teraanga ak yow mm-hmm. kooku mooy Cheikh Ahmed Tijani waaye suñ duggoon ci ay téeréem yum taalif duggoon ci fam jaar ci ay jàngam duma la ko mën a wax waaye daal li ñuy def daal kontaan nañ ci yàlla ba muy jël kii di ko yóbbu fii ñu toog dañuy ree di kontaan ndax sawar xam ne kii nga xam ne nitu lislaam la dem na fa nga xam ne foofu la ko yàlla soxla jërëjëf jërëjëf merci ci kàddu balaa balaa ñuy tàqalikoo ci laaj bu mujj ndax gan yi bëri na te amoo jot euh, li nga xamante ne nii moom mooy ay ndénkaaneem soo soo ñu doon ndénkaamanaam daal lam ko waxee na ko bàyyi waxe woon soxlawu ma benn karaama awma benn karaama man Cheikh Ibrahim Niass benn karaama laa am karaama googu mooy alquranul karim ndénkaaneem gi mu fi bàyyi toujours mooy ndaw yi yéen yéenay nekk mag ëllëg defar leen pay bi ci xam-xam ndax ci xam-xam lañ tegee dëkk bi bàyyi soxlawul dara lu dul xam-xam taalibeem moo tax foo ko gis ci xam-xam lay dox loolu lañu teg nekk leen ci yoonu sharia te bu leen ko wàcc mukk na ngeen nekk ay jullit xàqan te na ngeen nekk fu ñu leen gis xam ne ay taalibe tijaan ngeen lii moo nekkoon kàddoom bu mujj te loolu mu ñu wax moom la ñu bàyyi waxoon te lam wax moom ci la ñuy mujj ñun di ci nekk te buñ fi jógee yàlla na yéex tamit ci loolu rek la ñuy dénkaane kon daal Medina ngi nii dëkku xam-xam la dëkku jaamu yàlla la leneen loo dégg ci karaama ci bàyyi amut benn karaama rek la am mooy alquran gi te ba ko ñaanee yàlla yàlla may na ko ko Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mii ngay dégg tey ci àddina bi yépp mu toog benn doomam mokkalul alquran doomam bu njëkk a mokkal alquran mooy sëtu Baay bi ki nga xam ne doomu Cheikh Ahmed moo ñëw bàyyi yëkkati doomam may ko ko muy cheikh Omar dara mu ngi fii kook rek moo ci mokkal alquran ci doomu cheikh Tidiane Chérif yi kon karaama gam doon wax ci alquran mu ngi ci moom moo tax mari na ku fi am cinq ngay dugg balaa huit ans nga mokkal alquran waaye ca Mauritanie gis nañ xale boo xam ne sax wallahi lazim am na six ans mokkal na alquran fii sax ci Medina am na ay doomu américain yoo xam ne suñuy doom lañ ak américain pur yoo xam ne mokkal nañ alquran lépp fii lañ ko amee ak ay français kon nag sant yàlla ci loolu bu baax macha allah mooy lii nga xam ne mooy eh, eh, univers info tv univers info tv bii nga xam ni ndaw a ko moom muy eh, gala Sow mi nga xam ne tey moo ko moom ndaw la boo xam kon ñu ngi wax ne ndaw yëpp nañ jàng ci moom ci lii mu def ñi nga xam ne jàng nañ walla li nga xam ne mooy technique tey lii nga xam ni mooy jëm ci TV walla nangam walla ci internet bi képp ku ci mën rek na def ni moom te jàppale ko bu baax ñu ngi ñaan yàlla kon nu nga ko waxee keneen ki nag ki nga tudd nga xam ne mooy sama jigéen mm-hmm. ah di Farma Boy mm-hmm. dama koy wax toujours mm-hmm. ndax démb la du tey ndax tey ba may nekk ci pantre di toog di gàmm boobu la ñëw di ma fekk si ci pantre nekk xale bu ndaw dem dem di ànd ak man di ànd ak mayteen bañ dem ba nekk mag ak àdd yi ñu am mm. sant yàlla ci biir loolu waaye maa ngi lay seddeel na la Farma booy taalibe baay la loolu rek laa la mën a wax taalibe bàyyi la ndax doy na rek la suñu mag ja suñu sëriñ ba Cheikh bàyyi tuuti la mu waxoon mm. bugguma ngeen seedeel ma dara soo leen ma tegee lu dut soo leen may jullee na ngeen ma seedeel rek na ma taalibe bàyyi laa doy na yenu leen suuli lu yàlla def baax na kon nag maa ngi lay seedeel na la mhm. taalibe bàyyi la ndax benn bés dafa gis benn euh, ci commentaire ma gis ma dugal benn affaire rek ndaw si di commentaire xamul luy ndaw si di commentaire waaye pour moom rek ndaw si dafa commencé dingat mu attaqué ko dugg ko rentere ko avant muy xam loolu yëpp dara dugalu ko ci lu dul xër ci Cheikh Ibrahim moom bëggul kenn ku laal Baay Ñas kooku mooy Farma Boy moo tax maa ngi koy ñaanal yàlla moom ak xaritam kon Aïda mi fi ànd ak xawaawu mum àndal ñoom ñëpp ñun ñoo bokk génération ci Kaolack nii di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan may leen wér ak El Hadj yow mii moo ma la présenté te saa su nekk dinaa la ko wax heure bu nekk rek.